ñun dal, bu ñu sonnee rek dañuy xool France effectivement bu daay tàkkee fii pompier France moo koy fay bu ñu amee jafe waaw mais ñun justement nag aliénation boobu la ñuy xeex bu ñu amee réew moo lu baax France Orange Auchan Carrefour Bicis Total Free France CFA franc France CFA etc buñu nous ci réew momu mais bu mu jaaxal kenn sama yaay di xéssal parce que day japp tout tubaab moy lu bax l'imam Cheikh Anta Diop wax la vérité sonne blanche nous sommes tellement aliénés que maam Cheikh Anta Diop doon wax ni aliénation dafa egg fo la vérité sonne blanche on veut singer les blancs on veut avoir des cheveux lisses comme les blancs on veut ressembler aux blancs voilà ce qu'on produit loolu lañuy bañal suñu parce que xamnañ nañ ay médecins yu compétents ingénieurs compétents am nañ askan bu compétent lenn rek moo volonté politique un projet souverain boo xam dañuy tinki réew tinki le continent ñun décidé wuñu yóbbu ko Allemagne Abdou Karim Gueye ak famille nous ñoo devant cette situation Allemagne la jëm point final comme nous ma ko nous ñun fait que accompagner la volonté d'Abdou Karim Gueye et de sa famille du ñun ñoo décidé mu dem Japon la Chine ou l'Allemagne. Nous on a fait qu'accompagner d'accord mais justement nag gàcce mais nous, gàcce la feebaru Abdou Karim Gueye feebaru Kenen avant Abdou Karim Gueye ak ñeneen ñi nga que ne tey jii dans l'anonymat ils vont être évacués aujourd'hui wala demain gàcce la mais ñun loolu la nous xeex ñun nitu dëgg des valeurs loolu la ñuy ñun frappe loolu la ñuy xeex gàcce googu cinquante neuf ans après indépendance Hein suñu yenn jabar yi suñu yenn en fait jigéen yi ñuy dem wasini États-Unis quel complexe boo amee simple cataracte 10 minutes xaw ma quinze minutes nga faj ko nga dem fële faju boo bëggee vacances au lieu nga dem xaw ma Sokone mbaa Dendi Fellow wala feneen sur les Champs-Élysées Manhattan ah doo fulal sa bopp doo faydal sa bopp doo dëggal sa bopp doo jëmmal sa bopp justement gàcce la ñun li dal Abdou Karim buñu sañon am motax ñu ne sank feebaru Abdou Karim day que yéssal suñu ngëm ci né xex bi nga xamné ne suñu xex ñun ak Abdou Karim lay ñu ko on ne met pas en cause euh, euh, l'expertise de suñu médecin suñu spécialiste suñu sage-femme suñu bien le contraire ay jambar lañu mais conditions yu ñuy liggéeyee wax dëgg yàlla ak plateau médical bu faible ak structure de santé yu faible machine yi di panne bés bu nekk nga dégg hôpital Saint-Louis lii panne na ñu ngi évacuer Louga hôpital Sédhiou lii panne na ñu ngi évacuer Kolda mbaa Ziguinchor loolu ba kañ ba kañ du gis ngeen fi defe naa ay ressortissant Nigéria di dóor seen benn ministre Angleterre ndaxte day faju foofu bu ñu moytulee fa lañ jëm de bu ñu moytulee tous les jëm gis ngeen ici, doomu ministres et ak députés, député yi jàngee wuñu école publique loolu mooy lan ginnaaw bu saboter saboté école publique ba nous on n'a pas le choix Nous ñu dem à doom di jàngee bitim réew wala ci ay école privée université privée nous ñu jàngee ci école bu bon bi bi nga produire sur 100 candidats 65 échecs au baccalauréat Si saboter saboté njàng bi euh, maanaam Madame, yaram bi on n'a pas le choix donc justement cercle vicieux situation boobu la qui est léegi Les ku am sa doom bés bu feebaree yow nga choisir ndax sa doom day Sénégal dee wala day génn dama bëgg muy leer du ñun ñoo wax Abdou Karim Gueye nañ ko évacuer c'est pas à nous de choisir c'est pas à nous de décider suñu mbokk la suñu xarit la nous on accompagne particulièrement la volonté de sa famille